Sarabanda club ànd ak Papa Diouf ñoko bay doomu yaay jalla ñu wali ni ci baalen për ñi nga ma reere ñoor ñoor samba nga reere mayar ngi masal dëgg neexul tey nag ma taxaw ak kenn ah doomu ndayu doomu ndayu seen bar bi nu mu sax waaw mais koña dañ ko ko yëngi ci ji dama dama ah dama wuti doole quoi waaw dama wuti doole mais daanam liggéey mais tey ñu fekk la ci Papa ngay di def lu la neex naka nga gisee soirée bi waaw ah, mais bon gannaaw bi moom heure bu xewlee rek dañ koy wuyu ji quoi ndax def naa ni gannaaw bi daal saa bu wootee ñu wuyu ji ko quoi ñun daal ñii ñaan saa bu ñu amee jot fekk si ko ci li mu bëgg. yéen dafa mel ni yéen far si attan ngeen saala ci ñu daal ci de. dégg nga dafa mel ni yéen far si attan ngeen saala ci ñu daal ci. waaw ñun moom heure bu xewlee ñooyu ji bu wootee rek ñu wuyu ko ñun daal dañuy ñaan mi am jot saa su ne saa bu ñu wooyee ñu wuyu ko. acca tabarkàlla ba tey seen daanaan maa ngi la fekk fii Saraba naaj club ngay bëggee ak Papa Diouf. waaw gis nga maa ngi enjoy quoi parce que man tey laa ñëw xam nga. loolu laa jógee ñëw fii sax mun naa trop. mais nan nga gis a Sala gis nga daal daa mel ne attanoo ko de. waaw attanoo ko naa ne parce que jot quoi ma gën a mel saa bi. kon ak kon acca mais kon waree sa bopp. damaa gëj a dund dégg kon bëggal bi nga jógee bëggal bi nga jógee. waaw damay enjoy saa bi nii. maa ngi enjoy quoi kon acca nañu enjoy. aca ak topp ci waaw mais tonton laay tey maa ngi fekk ci Saraba ak Papa Diouf ñu ngi déggee quoi. après suñu waay la suñu yëpp la mais c'est normal bu ñu ñëw ne Saraba ambiance yaa ngi gën a xam xam lépp. waaw mais dafa mel ni Sala Kine gi daal di attanu leen ko de. waaw mais yaa ngi gën a xam xaalis yaa ngi gën a xam dañu ambiance bu ci kanam. waaw kon àjjee ñu dem doom yooyu tey dafa mel ni Saala ci daan bi attanu leen bëre. ma ne dafa mel ni Saala ci daan bi attanu leen bëre. ñun ñu war ñu dañ ko siy wuyu. loolu suñu garaaw bëggoon ñu borom te yàlla tax. xamewul nag suñu bopp la léegi waaye xamewul ay fantam. loolu ma ne lu war ñu dañ siy wuyu. ñu woowee say tàq tàq dañuy xuus. kon teg tam ni Saara Ba yaa ngi fi ah. nga ne kon chaque samedi Saara Ba yaa ngi fi. waaw waaw waaw loolu la kon ànd kon nañu bëggee nañu bëggee mais Tom yaay noo gisee soirée bi tey. mais neex rek mais Papa Diouf mën li muy moo waral ñu bàyyi suñu jëf moo baal ci ko vraiment kontaan nañu trop. muy naanaan génne lu bee tax di Saala Gine Guindaane est-ce que attan ngeen Saala Gine Guindaane. Saala lambu ko koy naan lamb foo ak ree la mais doom yaa ci loo de waaw maa ngi nii rek mais li nga sañse ba xeeboo ko moom li nga sañse jëlal ma ko xeeboo ma ko dafa fàpp saala gën gi daal ci moo tax nga sañse li ma ne saala gën gi daal ci moo tax nga sañse li waaw saala gën gi daal ci moo tax ma sañse li dafa fàpp moo tax way ci Dakar waaw mais tey ñu fekk la ci Saraba ngay bëgg loo ñu mën a wax tey soirée bi waaw tey soirée bi neex rek Pape dañ koy ñaanal yàlla mu dal fanam ay at la ñu mais waaw waaw acca nañu dem yaakaar naa Saba Sara Ba képp ku fi nga tey li fi gis am ak Papa Juba ñoo bay mais maam tey bëgg naa la tey ñu tekk la fi ci Sara Ba ngay bëggee. waaw loolu dafa leer te loo bëggee ba dafa teg sunu mag doomu bëggee moom bu wootee noo def ci du wuyu si ci loolee ne xam Guine la daal mais noo gisee Saara Guine daal bi. Saara Guine daal du moroomu xale barke yorante bi xale bu booy duul. eh mais daa mel ni gone attanu de. non non mag muy nelaw sax attanu ko barke yorante bi. Pape dafa mën a way. dëgg la barke Serigne Touba da laa doon koo xam ne waaye benn jikko laa ko jàppee dafa baax dafa modeste gisal j'aime bien Pape barke mi ngi ay doomu mi ngi nag waaw. mais kon daal Kaala Girgir daal gi gone du ko foowee. non Saara Girgir daal doy foo maa la wax nii mag sax àndal na ko <laughs> mais soirée bi neex na trop. dafa leer dafa leer dafa leer dafa leer mais doom yaay taxawal ni ñu bëggee mais tey dafa mel ni da ngaa ñëw ci Saala Girgir daal gi tey. waaw dama see ñëw. bi saa rek daal gi bisu Pape Diouf la quoi bisu bisu ñëpp moo tax ñu ñëw teew quoi wax dëgg yàlla bu nekk affaire bu nice ñëw waaw 100 pour cent bi gaa yëpp ba Pape si ñëw ba bi am yëpp a jaam si kon tak tam di saara baa nii lay demee waa kay mais kon nan yoole <laughs> waaw mais doom yaay tey noo gisee saara baa tey waaw jàppale Baye Badji suñu commune mooy def animam tey ak Pape Diouf waaw mais dëkkandoo yombul mais te dégg naa saala kin ñi daal ki gone attanu ko waaw waaw gone attanu ko ma nga koy yëngal kon acca nañu dem boog doom yaay mais mais mais mais tey lu ngeen gisee soirée bi tey a barke yonent bi ku baax day lu baax kii boolewul dara ak baax daa nekk suñu garant bëgg ñu danañ ñu bëgg yëg a koy ku la bëgg a lay tiitaroo ku la bëgg a lay sagoo daal moo tax ma ne naa ne saala gin gi ndaat gi ko barki yonent bi moo tax ma ne dina mel ni banaana barki yonent bi dégguma bés bi dina mel ni banaana dina mel ba bul furde ba jaay banaane na commande bi di dem Thank you. tubaarkalla dégg naa saala gin gi ndaat gi gone du ko foowe mais doom yaay maa ngi la fekk ci soirée bi nga taxaw def sa black and white def lu la neex daal est-ce xam nga ne daraa ngi ci yow waaw kon lan la ko laaj naa ko. non dara googu noonu après lay feeñ. non dama la koy laaj. non non en tout cas ngi ci yow. waaw daraa ngi ci man dëgg la <laughs> mais noo gisee soirée bi tey. ba soirée baa ngi nii ala daw mi def bëggee kontaan ci Pape Diouf barki yomal juma. mais dégg naa Sala kii ñu daal ko. yii xale attanu ko du ma romb gone. <laughs> mais looy laxatu kaay taxaw fii et eh, jëlal ma ko looy laxatu taxawal yow it eh, nga def sa robe a a bàyyi dëgg neexul doomu yaay Diallo ñu ngi ji tey bi mais noo gisee bi tey soirée bi ala dafa mel ne neex na. ñu ngi ñu ngi soirée moom wax dëgg mais gisuma leen ngeen ñax dafa mel ni feccu leen. mais ñu ngi fecc. ñu ngi maa ngi ñëwaat xool ndax yéen a ngi fecc wala. waaw kon daal leer na. acca la doomu yaay Thiel ñu ngi la ñuy wax Papa Diouf ak Yaxa Baye mais ma ñëw jàkkaarloog waa Sunset Dame Lam DG mais namu naa la doomu yaay. non je suis pas DG je suis <laughs> xam naa la yow est xam nga ne dara ngi ci yow. non yow yow kenn gënu laa doon dara. adam yow manam dama jay baye xel yaangi ñëw léegi te inshallah gay nañ ci am firde diko don baxa baax ci wa elvision Média voilà mais tay naxé nga gisé tay soirée bi ànd ak Papa Diouf fi Saraba waaw ñaara ñu indi ah tey muy Bathie Diouf di Papa Diouf ku ne xamna yaak nañu ak génération consciente waye Bathie Diouf day kenn ci man maam mom dem nañ fu ne am nañ fu ne ma xam ko nag ci ci Padros waye li ñu seex ñaare Pato sax bokkatu ci muy ku baax anniversaire am tey mënul ma déplacé équipe bu ñoo def couverture bi àndandoo bés bi su dee noonu moom bougie yi ñaanal ko yàlla yàlla dafa ko jàmm. tey daal nga ñëw ci ñaari casquette ñaari casquette ñetteel bi dama bëgg mu nekk danse ndax saa la jërë ngeen daal gi dégg naa ko ne attanu ko <laughs> non fii yaa ngi ne waaw mais doom yaay foo jëm taxawal ñu waxtaan tamit dëgg neexul mais noo gisee soirée bi tey. waaw ah, soirée bi neex na macha allah Babou Diouf xam nga daal la moom kenn koy wax kenn présenté kenn moom mais Babou Diouf daal la vraiment boo doon dépassé tey quoi pour ñoo fekk pour fekk soirée bi quoi vraiment. tey daal nga ànd ak waa di def lu leen neex. waaw xam nga nag job rek xam nga ñu lépp ñoo ko bokk benn sens suñu wàll ba rek ñëpp ñoo bokk ndey ak baay am gën a xam moom daal la vraiment boo waaw waaw imno ngi ni imno ngi ni <laughs> waral mako ko Ibnu Joob la waral mako ko Ibnu jarul ngay daw dama lay téye dama lay téye dama lay téye <laughs> mais jëlama li mu sañse jëlama sañse bi ci kaw ba ci suuf dëgg neexul mais doom yaay foo jëm. waaw mais tey de damaa ñëwoon lancé Pape Diouf ibu ma gën xam. xoolal ma Ibnu Joob la mu sañse mais Ibnu ñu ci Saraba ak Papa xale yi naan sa saala gin gindaat gi mais noo gisee saala gin gindaat gi tey waaw mais Pape man maa ngi doog a ñëw mais Pape day fay day fay ah non la waaw ndaanaan la acca nañu dem waaw Kalla ànd waa ànd ak waa El Vision Médias fii ci ak Papa Diouf ak Niakha Baye Samba mais doom yaay tey noo noo def ni tey ci noir. waaw soirée bi tey samedi bi naa nag sama doomu ndey sama copain ma ñëw quoi ndax daaw ma ñëw mais soirée Pape Diouf neex na trop. affaire bi si kaw si kanam. kon daal taal ak gin gin daal bi ko ne attanu ko. waaw yéen a <laughs> dëgg neexul a nee na misaal ak kin ki ndar ki gone àttanu ko dëgg neexul Xaadim Mbay dogoo ngi nii dogo faali maa wa joor kuma samba yaay ñaloor dogo mi ci mbel goor a ngi mag sama ci loo ne mais sant bu ñëw daje fii ci Saara Baagi avant tout defal lu la neex def lu dul nuyu la nuyu téléspectateur ñu seetaan ak waa Sénégal ñëpp euh, di kontaan ci nga nekk di tout spécial nekk nit koo xamante ni kenn nga ci man Euh, maa ngi mu yàgg lool ma ci kontaan ci liggéey bi aussi di la félicité di nuyu Mbaye Dollar sa caméraman bi nga xamante ni moom tamit macha allah euh, di am contentement ak mbégte tey dajeeg yow fii. mais patron ci biir i rajo patron di def lu ko neex fan si di bég mais patron sénégalais yi ñoo ma yónni ci yow ñu ne lan mooy secret bi. réew mi ma bëgg mënu ma ci dara réew mi ma bëgg rek. dafa ma bëgg ak nangoo euh, liggéey boo nekkee xale. damay jéem a mel ni yow damay wax sénégalais yi xale yi nañu nangu liggéey xool yow xool ci man xool ci mbay dollar ñun ñëpp xale lañu tey lu xale amul man mënu ko am boo nekkee xale del liggéey ak lu mu mënti doon liggéeyal secret bi loolu la. ba nga faali Baba ma sàmm yaay jëloon borom yi rajo defal lu la neex <laughs> waaw waaw eh ñëwal ñëwal ñëwal fu ñuy Adama noo gisee soirée bi tey. neex na trop macha allah. nga ñëw ki Papa Diouf di def lu la neex. waaw def lu ma saf sànnee bu bon fa laale. waaw kon yëgatul ba kenn laal la. <laughs> waaw waaw. fu ñuy tase eh aja tabarkalla dëgg neexul ñëwal ñëwal Papa Diouf la ñu wax. <laughs> ayca ayca baa ngi nii dëgg neexul mais doom yaay noo gisee soirée bi tey. waaw ba ginnaaw raay de. <laughs> dañ fës. lu ne. kon yaa bi ku ci bokkul ci kii dalay daal. dalay combat baa ngi nii nekk neexul eh, mais doom nay noo gisee soirée bi tey daw na dafa ragal mafia bi la eh <laughs> waaw mais doom yaay wax ma li nga garaamu bu lum doon waaw waaw waaw xam rek gaaw ci li ma jàmm nekk xam nga xam rek dama ko daal waaw papa li nga mat waaw kon tey da nga ñëw pour def lu la neex waaw waaw final la mais defal lu la neex kon te fu waaw waaw <laughs> mais ba tey doom yaay mais tey ñëw nga ci bi def lu la neex. bi ñuy def ak Pape bu ñu ko bàyyi fekk bu ñëw bàyyi bëre attanu ko. non daanaan la daanaan la daanaan la macha allah. acca dañu dem mafia baa ngi nii waaw waaw eh. waa mais Ndoumbé tey maa la fekk fii tey nga def lu ma neex ci soirée bi de xam nga Pape moom lu mu xew la rek ñun moom dañuy ne lu yàgg dëgg la tey yéen ak Pape da a yàgg 2009 la woon ba léegi. te lu yàgg dëgg la loolu dafa leer dëgg neexul. ci 100 pour 100 Pape Diouf. fa leen neex tey ngeen ñëw fii ci Saraba ànd ak moom tey naka nga gisee soirée bi tey. waaw gis nga de tey daal xam nga Pape rek moom daf ñuy bëgg chaque jour ñu ñëw dëgg neexul felaale noonu rek def ñu saf rek xappi partenaire sa la ñuy def ñu dëgg neexul waaw. kon nag euh, dégg naa fecc bees góor day dëgër mais ci jëm xanaa daa war a nooy kon. waaw góor day dëgër rek ñu taj fii tamit day dëgër de. dëgër musul dëgër day nooy. ay wax kenn bëgg ko. mu ñëw ñu waxtaan sax. kon. ay cee tabarkaala góor day dëgër lañ wax mais noo gisee soobu bees bi góor day dëgër waaw góor day dëgër moom daa war a góore même boo koy fecc da nga war a ànd ak doole léegi nan lañ koy fecce nan lañ koy fecc góor day dëgër di gañaale nag waaw ñàngal quoi wane ne góor day dëgër waaw góor day dëgër mais noo gisee soirée bi tey waaw soirée bi moom macha allah quoi Pape suñu xarit la ba mu bëggee daf ñoo woo jox ñu ay ticket nañu ñëw leen sa laa bégee moom xol bi daa rafet te yaatu macha allah sunu doom nday la xam dañ koy jàppale waaw parce que mais Tom yaay noo gisee góor day dëgër waaw leer na nañ góor dafa war a dëgër góor dafa war a dëgër dégg naa fecc bi dafa soxor boo koy fecc métti na yaa ñu ko dàq yaa ma noo koy defee wax ma nan la wax ma nan la rek nii rek góor day dëgër waaw mais doom yaay kon dañu war a wane ne kon góor gu nekk da nga war a dëgër ci la nga war a nekk waaw loolu loolu leer na tey loolu moo waral tey bis bi sax bis bi tey dafa góor dafa dëgër Pape Diouf dañu koy ñaanal yàlla quoi lu mu somb yàlla eggale ko ak jàmm ak salaam grand bu galant la grand bu sérieux la soo gisee soirée am ñëpp day bàyyi seen yite yëpp ñëw ndax parce que moo ñu ko woon ñu ñëpp yemale ñëpp di ko di ko jox benn a tamit bu mu déglu tamit waxu nit ñi quoi na nekk si yoon bu mu nekk rek jàpp lu mu jàpp gëm lu mu gëm gaa yëpp a ngi si ginnaawam. kon aja nañu dem góor day dégg. fecc bu bees la El Vision Médias na ngeen ko jàng góor. mais Vieux Ndiaye kan moo la engagé. waaw mais engagé boo jamonoy engagé lañ nekk waaye nag. il faut ñu boole ci olala <laughs> mais Vieux Ndiaye da ngaa génne single engagé Sénégal koo romb ñu naan ku la engagé ku la engagé mais Vieux fàtte nga nit ñi. ah mais nag dëgg neexul. jamonoy engagé lañ nekk. ak jamonoy olala. olala bul nangu ku la yàqal sa la barke Serigne Touba sama jabar damay tëdd ba guddi. waaw bu ma woowee téléphone mu ne ma bul nangu ku la yàqal sa olala. ah mais. ma ne ko Vieux Ndiaye ma tooñ. xam nga jamono ju ñu nekk nii. jamonoy olala la. dëgg la kenn ku nekk neen sa jabar. na dund óololaayam bu mu xool kenn. bu ko kenn yàqal xool kenn yàqal daraam. dëgg neexul nag. waaw Vieux ci lan nga nekk fan yii gëj nañ la gis nga laqatu euh, ci lan nga nekk actuellement. waaw fan yii nag moom. ku ne xam na ne sama album laa nekk. waaw maa ngi ci album bi nii laa nekk fan yii yëpp bu soobee yàlla dinañ ko génnee la 5 avril bu soobee yàlla. le avril ñu mën a xaar albumu Vieux Ndiaye. soobee yàlla óololaa day ñëw ñëw yu bees tàq. mais est-ce que di may man bu album bi génnee première sortie bi nga war a njëkk a def ñu jàkkaarloo ko man ak yow. waaw mais loolu mën a nekk la yéen yéen yéen man samay xarit ngeen. dañoo xew de gars yi xew de. yéen da ngeen a xew ci fondo instant bi ñëpp yéen la ñuy wër. dafa leer. ah caaxaan kon yow jàppal ne dañuy man ak yow. jeex na kon nag bu leen kenn yàqal seen olala. Oh ayca nanu dem. Saara Ba nga ñëw bëggee ànd ak Papa Diouf ñoxo Baye suara gisee soirée bi tey. soirée bi neex na trop euh, nekk na soirée garmi daal man maa war a dëgg fii le 26 samedi bii di ñëw incha allah rabi. yow Matar Wade. waaw man yaa war a dëgg fii Saara Ba. waaw di nga ci ak kan. ak euh, Matar Fall Assane Gawla Bébé Laye artiste yu bëri daal ci bis euh, bëgg naa la ngeen def teew allah allah. ngeen ànd ak yéen ñëpp ngeen defaat jaww ngeen toj rabi dëgg neexul mais fecc bees bii tudd góor nay dëgër noo ko gisee. góor nay a dëgër rek nay dëgër. dëgg neexul ah ca dañu dem. Kala baa ngi noonu mais Papa Ndiaye Papa Ndiaye ngi noonu ah Ndiaye biram jéeme kumba tabaar kàlla mbokkum ndayum ma xuja tey nag yëg ci kaw bi def lu ko neex mais Papa Ndiaye bëgg naa la. mais doom nday siyaar naa kontaan naa. mais avant tout saa la gir ngi ndaat ko teg. xoolal ni ma ñaxee. barki Serigne Bamba tegu ko fenn. Papa Diouf ci boppam am na lu mu àndal. non na lu mu àndal nag. yàlla ko yàlla fa cet. waaw macha allah mi ngi def liggéeyam. dëgg la yor xol bu rafet. ba pare di teral ñu ma àndal. li ci des nag moom sant yàlla rek. ndax yàllaay borom jaam ñi. waaw ñun ñu ngi bëggee lu rëy ñun nag ñu ngi ci wetam di ko jàppale di def luñ mënul luñ mënul. pour sant yàlla mais temps yi mooy góor day dëgër. waaw mais pour lan loolu. non dafa dafa nekk ci biit bi rek. waaw xam nga morso moom. waaw loo ci dégg rek. te moom ndeysaan day nelaw sax di way. déggal lii barki yonent man xaaral ma dem nelaw yi maa ngi dem nelaw yi kon. wala ba tey fii ci biir El Vision Média fii ci biir Saraba ma taxaw ak ndaanaan loo xamante ni Sénégal bu ngeen ko gisee ràññee ngeen ko Sénégal bu ngeen ko gisee gis ngeen ne maa ngi taxaw ak ndaanaan loo xamante ni kenn du ko laajte muy grand Bakane Seck grand ginnaaw bi ma leen nuyoo ba noppi ni ngeen def Saraba est ce que jàmm la. waaw dëgg rek bon. fan si moom li ñu bëgg rek loolu nga leen war a jox je pense que rek li nga xam ne day bàyyi lalam bàyyi ay nelawam yow jënd si kéem pour ñu la bëggee da ko war a bëggee rek ba xolam sax. mais fan yii ñu gën a ñu gën a gis grand euh, Bakane euh, ci euh, mu gën a génn lu bees grand dafa mel ni dafa laax ci liggéey wala nu mu demee noonu. waaw xam naa ne que ñu ngi ci liggéey bu am solo te xam naa ne que bu neexee yàlla très bientôt. yàgg dara nañ ko jox parti et eh, je pense que ne que lépp looy jox public bi ñu consommé ko rek war nga leen jox cër cër boo xam ne rek ah, suñ ko dégloo fii ak 10 ans dootoo soxla ngay génne lu bees. donc nga jàkkaarloog El Vision Médias di seen boo xamante ni tabarkàlla réew mi ko bëgg àdduna di ko bàyyi xel mais eh, lan ngay wax ci ñoom. waaw dañoo liggéey rek. xam nga nit moom soo liggéeyee dara jomb la te eh, li ma leen di wax dama leen di encouragé di leen wax na leen yoon wi ñu jàpp buñ ko bàyyi di leen wax na leen ñëpp fii lañ dooree lépp dafa dooree ci lu ndaw ba mën a nekk lu mag maa ngi leen di encouragé di leen wax seen liggéey yàlla yàlla jëm kanam quoi dama bëgg nga jox ma ndigal ma ñëw sa kër ñu jàkkaarloo def émission toog waxtaan heure boo ko bëggee yow amul autorisation 100 pour jeex na mu ngi noonu ñaan ak suñu grand grand Bakar Seck ba tey nan yéeg ci kaw nan yéeg nan yéeg eh, uma yaay uma yaay ah ñëwal ñëwal jëlal ee jëlal jëlli eh, jëlli <laughs> mais mais mais yow lan moo la dal nekk ci kaw rek di def lu la neex quoi mais tey ak Saara biir Saara Ba noo eggalee ko fii rek. saala gin gin daal gi daal ko ne attanu ko. ii neex na ba jolli. <laughs> waaw. root giis root giis roja wuyaayi waa mais lii lu mu doon. fecc rek bu ko Pape Diouf ba mu jeex. mais ngeen ñëw fi ci Saraba di def lu leen neex ngeen ànd ak Papa Diouf mais nu ngeen gisee soirée bi tey. waaw xanaa neex moom moo ñuy faj Pape Diouf moo ñuy faj. dafa leer. waaw waaw mais dafa génn fecc ci bees saala gin gin daal te dégg naa ko ne attanu ko. te dégg naa dafa génne fecc bu bees bu ñor saala gin ginnaaw. garaaw garaaw. <laughs> mais booy noo gisee soirée bi tey. nice nice nice neex na macha nekk ci kaw di def lu leen neex. gësam yëngal rek naa gis naa. mais dañoo génne fecc bees ak góor nay dëgër. neexal macha allah daal Pape Diouf daal ci kaw ci kanam ci lu baax rek. kon ak nan continué kon. aca El Vision Médias dootu leen ko defati man ngeen di yebal fii ci biir Papa Diouf a ñoxo bay sama buru gaañi dañuy def lu ñu neex ne dafa ragal la ba tey bir Saraba man ngeen di yónni biir Saraba loolu dootu leen ko defati ma jàkkaarloog Bébé Diop yoole yoole dégg naa yéen lañ tuddee le 13 février fële ca Kabana club. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu mbokk yi di nuyu seetaan waaw xam nga le 13 incha allah waa Seck lañ ko tuddee incha allah dinañ ñëw ak sa mbay suñu xarit la suñu doomu ndey la dinañ ñëw nag yoole Thiès Sabari duñ ko bàyyi. dañuy baara mbay dañuy def lu ñu neex daal. ngeen war ci ànd ak télé bu mag bi ñuy wax El Vision Médias a ngeen gisee chaîne bi. ah chaîne bi ni nga ko baax na ci parce que lépp luy doxal réew bi rek ñun dañ ci war a jàpp la dañuy gis liggéey naaj na teew. a ngi may preuve sax laay wax. dafa leer dafa parce que ak yoole yoole bu bees. ne rek gars yi duñ leen gis moo tax nag lépp la ñuy dajale incha allah boole ko indi ko le treize bésu mbay boobu kon nañu yoole nañu yoole nañu yoole ah nañu yoole